n'êtes pas en Europe, ni en Amérique, ni à Dakar, mais vous êtes bel et bien dans la ville sainte de Touba. waaw yéen a ngi biir Touba ci boutique totale Kër Khadim bi nekk ci route de Mbacké ci wetu banque CBAO bi waaw dañoo élargir suñu boutique ba mu gën a ngan ba noppi it di jaay bépp produit charcuterie ak poissonnerie ñu yokk boutique ba daa di fay def alimentation daa di fay def alimentaire def fa hygiène def fa cosmétique def fa vaisselle def fa habillement def fa divers ak lépp yemul foofu de dafa am gaamu soow soow piir soow mu neex boo xam ni nag ci ay siwo la nekk soow mi mi ngi tudd poroxaan soow boutique kër xaadim am nañ restaurant bu ñu tuddee El Hadj Dame si la ñu koy wax El Dasi restaurant boo xam ni décor ba boo ko gisee macha allah da ngay defe na yaa ngi Amérique wala yaa ngi France wala yaa ngi Ndakaaru déedéet yaa ngi fii ci tuubaa am décor am salle VIP bu baax

Xaadim nekk dans la ville sainte de Touba. yaa Allah yaa Allah loo ci ñaan may la loo ci jéggalu mu baal ci la nga ne yi tàbbee ci la xewal yokkoo shahr ramadan ramadan ya karim ramadan ya habib ya yaatalal sa xol sàkku yërmande ngelaw waay bu ci mooy yàlla tuubal jégalul dellu ci yàlla lu mën ci lu baax ci tay mengook safaan ba nanga ko baay loo nekk yaa ngi si jàmm non non ñun xamuñu si dara ba tey boobu ba léegi ñu ngi ko wër mais gisuñu ko yow looy wax nii li ngay wax mënul nekk de waaw ah, baax na d'accord yow foo jëm. dama am rendez-vous. doon woo sànq. di ma wax ne almaxtaar dafa dee te almaxtaar warul dee. man almaxtaar. almaxtaar benn bi dëkk si kër gi almaxtaar nekkul kuy dee. Omar dey boole na ma ak yow te mbir yooyu bu ma sañoon sa loxo de ci set wecc doomu aadama bi nga xam ne dafa reer liggéey liggéeyam bu lew denc alalam nga jël alal ji loolu ñaaw na trop rawatina nag ngay faat bakkanam pour yóbbu alalam te yàlla la mboxoon waxoon du ca jóg mukk te képp koo xam ni lekkal nga ni benn dërëm dañ koy topp rey gi nag dama koo jëlale ndax képp ku rey nit man yàq yàqtalul muuminiin la yàlla wax képp ku rey nit te tey ko mu ne fayam ëllëg mooy jaxal na ma te fa lay dëkk nag abadan du fa jóg kon loolu lu mat a moytu la rawatina nag nga faat nit jël alalam nga boole bàkkaar yu bari yu metti yoo xam kenn mënatu laa tàqale yoonu sawara kon bu ma sañoon dañ ci yéleb sa loxo bu mu set wicc te loolu kenn melañ ci non. yow lan la. man maa bàyyi bon man mi doon agressé nit ñi di leen rey di jël alalu jàmbur tey man maa ko bàyyi ndax weeru teel bi di jël xaalisu nit ñi. waaye lii lan la mbaa xam nga ne almaxtaar soppi na keneen ku dul ñun ñii. kooku référence la kuy dund rek war ngaa xool ci moom keneen ku dul ñun sax war naa xool ci almaxtaar non lii dafa ñaaw almaxtaar bàyyi loon a keneen ku dul yow almaxtaar def na si ñun leneen lu dul lii non almaxtaar almaxtaar warul dee doonul kuy de parce que liggéey na ci diine loo xamante ne ni non yàlla bu ko fayee xolam du sonn fam nekk.